ci réew mi ah man mënumaa toog ak ku man taway xam nga lu tax hmm. damaa yor ay nopp garmi damaa fooye way ba noppi doo a wax waykat nga yow waaw dama ko fooye pare doog a wax spécial tabaski bi ma def 3 si yi maag moo ma ko def mu laay fal ma loo xam ne ba fii may wax ak déggaatuma ko ci réew mi ndaanaan la piir sëñ Bamba bu ko négliger te bu ko cof mhm. am di bi toog ah. bu ko négliger te bu ko cof ndax kaani poobar xorom soble suukar lot cof mu jariñ la waaye as góor ko bu cof xale bi de ndax ndaanaan la te ci réew mi la koy eh, nga ne lan dama koy cof li ma koy wax mooy daa des koy doon bu njëkkoon ku way dañu lay génnee dëgg billaay daa naan jàkkaarloog moom mbay may daa am di mi ñam man xanaa xamuloo sama maam moo daan way dameel dëgg la bal ba rey dameel njëgi na sama maam man sama maam maama daan war fas yi di way kor jor jone eh, sala bi géngoone yu ko fal yaasin <laughs> samay baay ñoo daan war fas yi di way baboor ci kusu fas yi ma dëkk pextaal xale bi xew a ngi mooy sama baay Abdoulaye Mbaye Peex mooy sama baay. dëgg la ma doon ni ndaanaan. man joogu mbay ma di ndaanaan. <laughs> eh waay Samba. Birama Joor. ay. Kumba wara dogoy sama maam. man maay joogu mbay. ey ndaanaan lay doon dama ko doon su ma neexee nelaw di way. ah bu ma neexee di dox di way. bu ma neexee di def lu ma <laughs> oh, am na mi ñoon way dama ko donn ci samay baay dëgg la dama ko donn ci samay maam maa dëkk maa reen maa dëkk eh, kaleel ma na bagage si dugg a def kaleel la am na mi ñoon yow yow dafa naq non bul ma waaxu kaay taxawal waaxu la da nga taxawal nii mais yow yow da nga taxaw ne na bagage si yan bagage say dugg. <laughs> waaw yow parce dàll yi mën naa dugg ñëw yére yi mën naa ma ne na bagage si mooy lan. loolu dama cee foo rek. waaw ndax ku ne xam ne seetaan nañu maag Omaro mm-hmm. boo ñëwee déglu répertoire bi di nga xam ni. dëgg la loolu salange la rek. way la mm-hmm. wuy dem. waaw dëgg la way woo xam dañ ko woy rek foowee ko parce que ñun dañuy foo ay xale la. dëgg paa. duñ ay leneen. <laughs> paa yaa ngi ak seen i mbéjaaw yaa ngi dégg. seen i musaas mbéjaaw paa yaa ngi taxaw way nga xamante ni dañ koy foowee rek mais wayu ñu ko ngir. moo ko dàq feet ñaaw tey mu wan la ni moo ko dàq feet. ñëpp dafa nànk yow yi nga dugg. bagage nga dugg. et eh, rési aca waay dafa am dafa am ñaari ñaari tempo. yokkal loolu waay na jóg ay. eh waay eh, eh